Moussa fii lay tijjee campagne am bu caraat le dimanche 3 lay doon war cee def mobilisation boo xam ne mooy raw bi nga xam ne defoon nañ ko fi indi. toll ni 416 milliards yaatu na euh, kër kilifa diine yaatu na mais ba mu joxañee dafa ni Ila Touba ci siège boobu la nekk ba tey campagne électorale mu koy ibbi mu ni waat Ila Touba kon tey ñun ñu ngi woo ñëpp. képp koo xam ni da ngaa ne ci dëkk bi ci département bi surtout maa nag bàyyi ñu benn quartier ci turu Cheikh Abdou Mbacké ñu ngi woo ñëpp. li ñu wane ci Ila Touba bi xam nañ ni Cheikh Abdou Bali Mbacké c'est une valeur ajoutée à l'Alliance pour la République mën naa wax sax de la mouvance présidentielle ci loolu nag ñu bëgg nag mobilisation bu civilisée ñu def ko ci jàmm di woote jàmm ndax sëriñ bi jàmm lay woote ci lépp lu muy def. bis boobu nag le 3 la koo xam ne bi nga toogee sept ans sa bilan bi gën a rëy da nga koo jël jox ko sëñ Touba kooku vraiment buñ dee jëf wala ñuy xool wala ñuy tegtalu foo xam ne bu buñ ko falaatee gën a am dogal ci moom dañ jël dogal bi jox ko président dalal bi ñu 24 mu jël mu jëlal réew mi aggra lim bi moo nekkoon wax ji kon ñu ngi ko te xam ne gan la gan la goo xam ne it jëf na fi lu tax ñun ñëpp ñu war a mobiliser wu ànd ak moom mu tijji campagne am ci Touba ndax bu jëlee dëkk bu toll ni Touba mu jël campagne am yëpp bu ñu waxee Mbacke mooy Touba ndax bu dul woon ak Touba président du tijjee campagne am Mbacke loolu nañ ko wax mu leer moo waral mu jël campagne am tijjee ko Mbacke bëgg seeni Touba yëpp ak kilifa Touba yëpp teew fa ñaanal ko ci élection yi mu jëm mu am ci ndam. wax naa la ne la li ñu indi woon Ila Touba ba lu ko raw la ñu indi duñ bàyyi dara waaw jigéen ñi fas yéene wu ñoo bàyyi dara parce que nag foo dem jigéen ñaa ko man bu dee voté yi jigéen ñi ñooy voté bu dee mobilisé jigéen ñi